allahuma salli ala sayidina wa maulana muhammadin al awarri billah wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi bilatana barke borom Tuuba mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di jiital ci nuyoo bi sëñ Muntaxa Mbàkke ñaan saa borom yàggal ko fi loolu te mu ànd wér di jël nuyoo waa Kepaangook salaatu ala nabi yëpp ci njiital sëñ Basiru Ture di ko jox sëñ Abdou Samad moom sëñ Soxebu mi ñu fekk ci këram tey ngir mu waxtaanal ñu ci lenn ci njëriñal salaatu ala nabi noppi soññ mbooloom keppaangof salaatu ala ci naka lañ war a fonkee salaatu ala nabi nan lañ ci war a doxee lépp nag ñi ngi ko ñi ngi ci jublu waajal bésub salaatu ala nabi bi nga xamante ni ren jii mooy nekk ñaareel bi yoon ñu koy def kër Sëriñ Bassirou Touré fële ci sàmm Boqatul Mubarak ñiy ziar mbooloom yëpp di wax sëriñ Abdou Samad ne ko waa képpangu salaatu wax na bi ñu ngi koy béggee bu wér di ko safoo te mu njëkk ca sëriñ Bachir Touré xamante ne mbégte la am ak kontante ñëw fii sa wet euh, dagaan la jotaay bii nii kon dañuy ubbi suñuy xol taataan jox kàddu gi sëriñ Abdou Samad mu laa wiire ñu rek ci salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam waajee ko bis boobu di bisub salaatu ala nabi bi ñuy amal pour sëñ Bassirou Touré le 14 décembre rabbi kon ñu jox kàddu gi sëñ bi incha allah. billahi min ashaytaan arrajim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sadaqa allahu alazim allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa habli cheikhina ahmad bni muhammad bni habibillahi ma nawaahu li nafsihi wa habli ummati rasulillahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka ma nawaahu ahmad bni muhammadin lahum amin ya rabbal alamin innaka anta alwahhab asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi nuyu mboolem soppe yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di nuyu mboolem taalibi Sëriñ Tuubaa yi koy liggéeyal ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di jiital ci nuyoo boobu yi kii ko fi nekkal Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko te mottali ay yéenam ci liggéeyal sëriñ bi di nuyu bokkam yëpp ay rakkam ak i doomam ak i setam ak bokkam yi ci biir yoon wépp ak cheikham yi cheikh yoon wépp ak taalibe yi yoon wépp dina ñaanal it jàmmi adduna ak jàmmi àlaxira sëriñ Bachirou Touré mi nga xam ne sunu dooma ndax soxna Tahiratu Monsieur Abdoul Ahad mooy waajuram waaye day noonu ñi ko jurit yebuñu ko te naw nañ ko ndax ak jubam ak xam-xamam bu rafet ak nang koo joxe te sëriñ bi rek tax agit it bëggam yonent bi sallallahu alayhi waaye bëgg googu gépp nag daa dugg ci bëgg sëñ bëgg yonent bi moo tax amu ci sago ak liggéey bi mu ciy liggéey di ci gindi nit ñi ba keppaangu gii ngeen di wax ak njàmbaaram moo tax mu egsi fi mu egsi te it mën naa àgg fu kon nag bu amee bis bu mel nii ñëpp la ko defal jàpp naa ni ñëpp a ci ànd ak moom dana bari moos ko toog ci këram te xamu ko def ay salaatu ngir jàppale ko ci bis bi te du fa ñëw te du ko jàpp naa loolu kon nag noo ngi ci soññi bokk jullit yëpp yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp ko bokk waaye nag di ci soññi nag bokki taalibe mu yi xam ne nag dañoo am yaakaar joo xam ne yaakaaram jëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam la kon lu ko ay mën a defal liggéey boo ko mën defal liggéeyal ku yonent bi moo ko gënal loola salaatu annabi nag dafa am doole lool te rëy lool ci borom bi ndax lu mën a digal jaam ñii daleen koy diggal rek waaye moom rek moo loo xam ne da koy defandoog ñoom inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi door ne nag yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi fekk ngeen ma ci maak samay malaayika ñu di ko def ngeen ma ci maak samay malaayika ñu yët julli ci yonent bi kon nag yéen ñii gëm julli leen ci moom sëlmal ci moom loolu nag Sëriñ Tuubaa bay ci laaj ci woo xam ne kenn mësu koo bay te kenn du ko ndax waxuma limu gi quantité bi ak qualité bi waaye fam ko doon defee nam ko doon defee foofu la kenn du fekk ndax tëdd ci sa néeg bu sedd lekk la nga bëgg a lekk di julli ci yent bi na nga ko bëggee baax na naam waaye toog ca gaboon noonu yi wër la kenn ku ne yor ay ngànnaay kenn ku ne bëgg laa lor ba noppi nag sa xalima yi daw sab xol di di tudd yonent bi di ko di ko di julli ci moom saw làmmiñ di julli ci moom sa xalima di bind di julli ci moom loolu la ko gën fekk salaatu sitta bi matxi sitta tatihi batta ma atisay moom joxut yonent bi lii bàyyi lii da ko jox léppam waaw da ko jox léppam xaaj juróom benn weer yi muy julli ci moom juróom benn weer yi mu di ko takk te salaatu sëriñ bi li nga koy xamee mooy du julli mukk ci yonent bi te sëlmalu ci du julli ci yonente mukk te ñooñam ak saxaabaam ànduñ ci dégg foo ko gisee rek am na luñ ci wàññi wala sëñ bi defu muy loo xam ne nag jëf yëpp a baax jëf yëpp a yaakaaru waaye moo ci gën a yaakaaru ana lu tax muy jëf joo xam ne kenn du ko delloo masama dégg Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu anhu ñu ne ci kër Abdou Karim Fall ci fatu yim daa fatu foofu yàlla dogal mu yóbbaale ma fa. mu feex lool ci waxtaan muy muy waxtaan nag ci sëriñ bi daal di ne jaamu yàlla yëpp de baax na waaye nag jaamu yàlla goo ci bëgg mu ñu nangu ko mu am garanti da nga koy jox Sëriñ Tuubaa addiya ndax boobaa kenn du ko seetati ndax jaamu yàlla gum mën a doon. dana dem ba ca asamaan su jëkk si am malaayika mu fa ne am lu mu cay xool bu ko ca xoolee ba gisu ko bàyyi mu jàll bu demee ba ca seneen asamaan sa ca des am luñ cay xool buñ ci gisut bàyyi mu jàll noonu lañ koy topp bu juróom-ñaari asamaan yëpp nag lañ cay seet buñ ko gisut mu door a jàll néewaa na nag ku mën a romb asamaan yooyu te gisuñ ci sa jëf mu jar ñi du ko def nee loolu jafe la waaye nag li tax li tax jox sëñ bi sa lépp gën a noppale mooy sëñ Tuubaa duñ seet dara loo ko jox ñu nangu daal ne man nag man Abdoul Ahad nag moo tax man moo fas yéene samay julleeg samay koor ak sama jàmm yàlla yëpp jox naa ko maa ngi leen koy misaal nag ci mi ngi mel ne wut kooku su ndox amul wut kooku su ndox nga bëgg caa sanku bëgg caa fóot bëgg caa togg daa mënta ne ana nooy def demal mélancé gi borom géej borom géej ju jeex xolal kooku soo sotti ko ci géej rek bu ko defee doo du jeex de <laughs> loolu nag mooy rawatina nag sëñ Tuubaa nga di ko nga di ko liggéeyal ci yónent bi Sëñ Tuubaa moom liggéeyal ko moom ci boppam bëgg na ko waaye nag la ko gënal lépp nag mooy nga di ko liggéeyal ci yónente di ko jullil ci yónente moo leen julli gi ngay julli liggéeyal Sëñ Tuubaa nga julli loolu da lay wër nangu na ko ko nangu waaye nag lu ci waaye sasoon nag na ko respecté na ko respecté ndax tàmmal tàmmal tàmmal sëñ bi bu ne mu dégg taalibeem bu julli ci yónente bi nangam mu dogg ci ne dana ko def am bis bu manqué te adduna rek tax itti adduna rek tax dara jël bu ci kon nag lu jàpp naa ne keppaango bi dañuy xëy di julli ci néew ma amutoon waaye la ko jiitu néewaana ngay gis ñu koy def loolu lépp nag ci kimaani si Tuubaa la bu yàggul rek man mii sos naa euh, jataay yoo xam ne mi ngi war a àddina fépp ñu di ko def te ñu koy def sax duñ gisante duñ xamante te moom mii laa ci jiite diwaanu salawaat laa ko tudde mm, fi mu ne àgg nañ ci bis bu ne danañ am cent vingt quatre mille ñetti yoon bu ñu xëyee danañ dama ne leen na ngeen fexe ba am inda sabaax yoo fil masaa <laughs> waaye léegi nag am nañ bëccëg bi fa sax léegi doole si buñ xëyee danañ def cent vingt quatre am na ko sosoo du manqué am nañ ay nga xam ne ku am ngant jox leen bu bëccëgee ñu amaat cent vingt quatre bu guddee ñu amaat cent vingt quatre lépp ci loxom bii laa ko teg mu jëm bis bu set danaa jul bind genn julli ci sëñ bi julli ak léeg-léeg ma barkeelu ci gaa ñu baax ñu waaye dama cee barkeelu rek waaye sëñ bi asalawaatu xadimiya moo ma gën a jox bu ma ca bindee dama koy jox mu firi ko leeral ko nit ñi wax leen lim yi ak lam ca xam moom it tasaare loolu lépp ci liggéeyal Sëñ Tuubaa nun nag sunu yëngu sunu dal sunu lépp loo gis ñu di ci yëngu mbégum sëñ bi lañ ciy wut ak ngërëmam waaw ne dañ ko dañ ko fi weesu di dem fenn di wuti lenn waaye dañ koy dàkk ak bëggam rek moo tax foo nu dégg ak luñ dem ñun ñëpp foofu la te fi ma ne fi la ne xanaa koo seere ka ca jàngale alxuraan ak ka ca bëgg alxuraan ak ka ca bëgg yonent bi yëpp da bi te xam ne sëñ bi ak bëgg mooy yonent bi ak alxuraan loolu rek la waaye sëñ bi suñ lépp nag kon nag noo ngi soññi ñëpp di soññi sun bopp ci bis boobu bii di fukki fan ak ñeent ci décembre bi ci këram bu ma yàlla mayee kàttan aku man maa fay jiitu ñëpp wax naa ko ne ku ma sëlmalee fajar fa laay naan kafe <laughs> ma fas naa yéene maa fay njëkk jàng fa ma baatil bichir ubbi ko incha allah di ci soññu bokk yëpp nag ñëpp jàppale ko ñëpp ànd ci ak moom la ca des ñi mënta ñëw ne bitim réew wala foo ay mën a ne mm-hmm. bis boobu na nga jàpp ci julli ci yonent bi loo man mm-hmm. boo ma ne am numéro yi joxe ko ñu xam lim yi mm-hmm. ku ko mënti suñu borom xam ne lim yëpp te moo ci am solo sëriñ bi xam ne lim yëpp ak sangam kon nag nañ ci góorgóorlu bu baax te jàpp ci te ñaanal sëñ Basiru itam sasam wu rëy wii mu saso muy xamle ak yeete ak jàngale te loolu bokk ci li sëñ bi gën a bëgg suñu borom ko may ko wér ko fi lool sasoo du boy mukk ndax am nañ ci yow yaakaar yàlla bu yaakaar tas wasalaamaaleykum xol yëpp sedd nan te li séntu am na si lu kawe suñ njort di fàttaliwaat mbooloo mi rek képpaangook salaatu ala nabi biñ ko sosee ba léegi semaine bu jot ay million la ñuy julli ci yoon bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jox addiya di ko jaale ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi bi ñu ko sotee nag ba léegi depuis 2021 daaw moo nekk première édition bi nga ni mbokk yi woote nañ ko comme ni ko Sëriñ Abdou Samad woote bi mu waxee mbokk yi taalibe yu bari ñi bari xamante ndax ci internet bi lan lan lan lan jokk daaw ñu def ko ñu ne nan woote bis bi xamante ni dañuy dajee julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daaw mu amoon yéene tew lool waaye suñu borom dogalu ko ren bëgg na caa teew ñëpp dégg na ko kon ñi ciy woo mbokk jullit yëpp di fàttali rek ne di di dagaan ci mbokk jullit yëpp rek ñu ñaan ñu ko su mboroom yàggal ko fi lool. moom ñu koy dagaan moom mii mu ñaanal leen ñu suñu jëriñ ji di sëñ Bassirou Touré suñu borom yàggal ko fi ndax bu fi yàggee lépp dina baax lépp dina baax. ndax bi ñu jiitalee bi biñ ko bi bi bi nekkee ci ci keppaangu salaatu ala nabi bi ba léegi. lépp luñ xam ci salaatu an nabi ñëwee ci di ko yaatal yépp moom mii moo ñu moo ci taat moom ñu ci taaw moo ci taaw lépp luñ xam ci salaatu an nabi moom mii moo ci taaw kon ñu ngi koy ñaan sa borom dolli ko kàttan doolu ko dëgër ba lii mu yéene liggéeyal Sëñ Tuubaa su ma àggale ko maanaam ko mbokk yëpp kon ñi sant bu baax si Sëñ bu Samad di sant mbokk taal bi nga xamante ni ñoom lañ àndal ci bi ñuy ñëw ci demee sëñ Saliou Lo sëñ Modou Mouhamed Thiaré ak suñ caméraman yi sëñ Babacar ak euh, sëñ Moustapha Mbow ak soxna Fatou mi nga xamante ni ñu ngi ci keppango soxna yi mm-hmm. kon ñu ngi ziar ñëpp di wax di jox sëñ bi kàddu gu mujj rek mu ñaanal mbooloo mi. di wax di wax mm-hmm. na ci amu sas. waaw incha allah rabbi na daara mm. bis bi daal li muy demee daal mooy. bisu bisu bisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci moom saa su nekk danañ ci ñaan laal tamit waaye daw li nga xamante ni ñoo àndoon ñun liggéey bi suñu borom def ñu jiitu ci ñëpp dañ leen ci ñaanalal ñaanalal waa dawlu yëpp nga xamante ni saa doon bi moom benn ba rek ëpp na kenn nit waaw moo tax képp koo xamante ni suñu borom ci aadama ba ba ba ci joni tey ak képp kuy demaat ñu dugal la ca suñu borom taawu la ci liggéey boobu noonu kon euh, ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy fàttali mbokk yëpp ku ci mën aw rek ci salaatu an nabi lépp mu mu jiitale ko bis bi bu demee ba ci bis ba tamit ku mënta ñëw fa nga toog nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi daf ko jox ko addiya kon ñuy jox sëñ bi kàddu gu mujj gi rek mu ñaan mbooloo mi alhamdulilah jërëjëf arrahmaanu ya maliku ya quddus ya mukrimu laka sana walhamdu walchukru maa ala allazi fadlaka lii qad jamaa amiin salli salaatan tamla'u alsamaa wal arda yaa man xaada li namaa amiin maa salaamin yartaqi lil arshi wa yamla'u alkursiya yaa zal farshi wa yudxilaani albishra fi qalbi nnabi sururi kulli aqrabin wa ajnabi ala nnabiyi almuntaqa muhammadi wa alihi wa sahbihi wa rahmatulah barakallah barakallah inna nabiyana rasula ahmada إن النبي الرسول